خاتمة شر الضعيف الوطر فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطارب وآخرون غير هذا رتبوا ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إثنانه يمرق وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد طيب بسند خوفا مجيء أجوزا ولا تضعف مطلقا ما لم تدر تضعيفه مصرحا عن مجتهد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 bil isnaadil muttasil min awal kitaab ilay xaatima bunt bi insha allah maanaam moom mooy bunt bi nga xam ne incha allah moom xaatima mooy liy tëj xam ne day tëj mboolem li nga xamante ne moom la ñu jotoon a gis ci wàllu maanaam euh, bunt yiñ jotoon a gis surtout ci wàllu daif surtout ci loolu lay aju euh, di ko conclure nag waaw léegi nag ñuy conclure nag ci maanaam xeetu daif yeeg yu ci ajoog mbir ak mbir ak yaay yooy nekk ci biir ak lépp euh, moo tax mu nose bunt bi tuddee ko xaatima tëj nag ndax nag euh, jot na nag léegi li aju ci walu daif lépp nak legi alhamdullilah ah léegi nag xam nañ ko xam nañ istilahat yi manam jargon yi borom xam yi di utiliser rahmatullah alayhim ci di wax ci walu daif lépp legi tabarakallah mu am rek ay notion yo xamne nak mom lay tëjee mu nek yo xamne ne général ci walu googu manam mun sharru daif al l wadu fal matruku thum ذو النكر fal muallu fal وبعده المقلوب فالمضطرب واخرون غير هذا رتبوه شر الضعيف ضعيف بيتي يس بيتي غنا داي وار كوم نينكو غيسه موي الوضع حارس بوخنا موضوعنا ngane wa d'accord lolou mom xamone nako parce que waxone nga mané al khabaru al mawdu'u sharru al khabari wa ko nga ne waaw nga lu ci mu ne fal matruk topp al matruk matruk xamante ne kenn moo ko solo te waa jooju dafa am sikk gu nekk ci moom gu rëy rëy rëy du demee nekk day faral di nar ak yu demee nekk noonu ak ku kàccoore wala yooyu sum topp nag zunnu ko boroomuk maanaam an nukkur mooy munkar mooy zul nukri mooy munkar mooy loo xamante ne ak nakkaara da caa maanaam ak ñàkk xam maanaam du maaruf daal kooku moom mooy munkar moo ci tegu kon mawdu mu yées matruka ci tegu <laughs> munkara ci tegu fal mu àll mu àll moo ci tegu dañ koy wax mu àllal dañ koy wax maalul fal mu mudraj moo ci tegu waxoon nañ ko dëm yuy boole ko ci maanaam yii noonu lañ toppante wa baadoo ginnaaw gi nag al maqlubu maqlub moo ci tegu fal muttaribu après nag muttarib moo ci tegu mooy bu mujj bi wa axaruna am na ñeneen ñoo xam ne boroomi xam-xam rahmatullah alayhim comme di dinañ ko gis insha allah gayra hada leneen lu dul lii rattabu manam non lañu ñu tof toftale manam kon mom toftale gi nga xamantene mom la imam Suyuti rahmalahu def nga xamne dafa japp ne mawdu mo gën a doyde après matruk après munkar après mu'all après mudraj après maqlub après muttarib am ñeneen ño xamantene ñom benen budul bi def nañ ko am beneen toftale gu bokk tak toftale gi léegi muy dem ci benen masala mu ne waman rawa kep ko xamne da nga solo nak mat nan yax saxeexan bu wér mu day dogu maanaam booy soloo xadis boo xam ne dafa wér da ngay utiliser li ñuy wax siratul jazmi dégg nga maanaam nga utiliser wax joo xam ne day wane na yow lii ngay wax da cee dogu aw wala boog waa yéen wax ji nekk loo xam ne dafa doyadi maanaam mooy ku soloo tam wax joo xam ne dafa doyadi aw wala boog xaaluhu xaalu xadis bi laa yu'lamu xamuñu ko hmm? bi xayri ci lu amul maa benn yoon isnaad yi càllaleem maanaam xamiwuñ ko ci càllaleem xamuñu wala bokk xadis bi amul càllale yow da indi rek xadis bi maanaam Euh, bi xayri ma isnaad yi de bi xayri ma isnaad mooy ci loo xam bi xayri ci lu amul ma bu mën ak nu noo ko mën a indi rek amul isnaad yi càllaleem maanaam indiwuloo càllale gi du tout yow loolu la maanaam da ngaa indiwul càllale gi maanaam da ngay indi ab xadis soit xadis bi dafa saxe yaxu xadis bi dafa wér waaw da ngay eh, wax wax di wane ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam na noonu ngay waxe qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala nabi sallallahu alayhi wasallam wala yooyu wala sabata an nabi sallallahu alayhi sax na ñu jëli ko ci yenente bi sallallahu alayhi mu ne et cetera genre wax yooyu waaye bu fekkente ne xadis bi dafa daif wala boog xamuloo xaalu xadis bi ndax dafa am ku nekk ci càllale gi wala boog càllale gi ci boppam nga xamoo ko waaye yow da koy wax di tudd xadis bi xamuloo xaalu xadis bi ndax wér na walla wérul kooku moom yu mar ridu da nga koy doye dal maanaam da ngay feebaral comme niñ koy wax da ngay koy koi da nga koy làggal maanaam da nga koy waxee waxin woo xam da ngay am na sikk gu maanaam am yow mii daal li ngay wax wóoru la ne yent bi wax sallallahu alayhi wasallam wala boog waxe nga ko noo xamante ne da nga cee bëgg wax ne wax ji daal ah, dese naa maanaam lu la desena naa kon yu marado da ngay utiliser siratul tamrid lu dama nekk nee ah wax nañ ne yent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ne wala aha dégg naa ne genre wax yooyu yoo xam ne amul dara loo xamante ne yow engagé na la ci engage wu loo ci dara dara dara dara loolu la léegi nag mu ne muy indi nag benn exception wax ju am solo ci masala mu ne watar ko waaye bàyyee moom bayaana daafin maanaam moom boroom xam-xam xadis bi tarko bàyyee moom bayaana daafin leeralu ko woyof doyadik xadis xat dëgg dëgg radu gërëm nañ ko bu fekkente ne xadis bi dafa ñëw nekk xadis boo xam ne daif na nga bañ a wax ne xadis bi daal dafa daif maanaam nga ñëw rek tudd xadis bi saa nga wax ne dafa daif loolu gërëm nañ ko waaye nag du ci lépp de fil waazu ci waaraate ak yu mel ni ki ñoom dinañ ci ñëw incha allah aw wala boog fadailul amali jëf ngëneelu jëf yi maanaam jëf yi nga xamante ne ñoom boroomee ngëneel leen maanaam luy xemmem loo nit ñi ci ñu jëf lu baax ak bàyyi lu bon di leen loolu moom gërëm nañ ko maanaam nit ki ci condition boobu mun na bañ a leeral na xadis bi dafa daif mu ne lal àq di deet pas-pas bu mbir mi nak bu ajo ci pas-pas mom hadith bu dayefee rek fokk nga leral ko wal harami ak ci li aju ci walu lu haram wal halal ak lu dagan manam bu fekente dafa aju ci atte yi xam ne atte la masala la yu masala fiq ya dëgg la nga xam ci ahkam la aju ndangam dagan na farata la dañ ko sopp haram na et cetera dañ ko sip yoy nak par contre suñ ci deme ba ci wax kok mom munoo ko bañ leral kon lool mom kenn du ko ci gërëm wala niki noonu tamit duñ ko gërëm isa yastaddu ndem tar na bu fekkente ne dafa tar daafun ak doyari maanaam bu fekkente ne tamit euh, doofu gi dafa tar loolu tamit kenn du ko gërëm lii itam beneen mbir la moo xamante ne bu am solo la maanaam xadis bu xamante ne dafa daif condition yi ñu lay permettre nga solo nga wax ko te doo leeral ne xadis bi dafa daif mooy mu tudd maanaam ci domaine bi mu dafa am domaine yu spécial yu ñu koy permettre kenn du ko permetre ci domaine yëpp mu joxe ci exemple ci waaraate wala boog wax yi nga xamante ne wax yu ngën yu yu xiirtal nit ñi rek ci ngëneel naan lii daal euh, jëf ju baax yoo xam ne dafa am ngëneel euh, waaye mu indi beneen condition mooy warul nekk tam loo xam ne ak doye moom xadis bi dafa dafa tar daa war a bokk rek ci nga xamante ne moom lañ doon wax biñ tollee ci xasan ay suul xifzi aw irsalin aw tadlisin aw jahalatin yooyu noonu yaa ngi dégg mais pas bu taree hmm? ah, wala yu mel noonu léegi ah, kon loolu kenn du ko baale maanaam bu taree mais nag bu tarul bu fekkente ne tarul kooku dañ koy baale mu am yeneeni condition mooy mu nekk loo xamante ne day dugg ci ron ak sharia ci ci ron ak cosaanuk loo xam ne cosaanuk sharia la boo xam ne xam nañ ko ba pare ne mas lii kat xam nañ ni alxuraan da koo gërëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo gërëm ba mu xam ba ñu mu sax ñu xam ne lii daal de toute façon charia gërëm na ko charia saxal na ko léegi nag bu amee xadis bu cay wax nga bañ a leeral ne dafa daayif te fekk xadis ba du kiwul euh, doofu ga tarul waaw bu boobaa mu am beneen condition bu ci ku mel ne ñoom imam an-Nawawi rahmanallah yokk mooy nga bañ a fas ci sa xol ne maanaam ne xadis ba dafa sax jamono ji nga xamante ne moom koy koy jëfe mu ne su ma topp nag man képp koo xamante ne daafan xadis boo xam ne dafa daif ra a ah, da koo gis fii sanadin ci càllale maanaam maanaam daafan akuk doye di su ma man képp koo xam ne maanaam borom xam xadis boo xam ne daafan akuk ra a ah, da ko gis fii sanadin ci càllale gu mu mën a doon waraama te mu an yaqula ci mu wax fil matni ci càllale gi daayifun ne xadis bi kat dafa daayif xayyadaa na ko tënk bi sanadin ci càllale gi maanaam boo gisee benn xadis boo xamante ne ma maanaam muy liir téere bu mel ni sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah ma gis ci xadis boo xamante ne dafa daayif ndax càllale gi laa xam ne xadis bi dafa daayif ndax dafa am maanaam ak faiblesse gu nekk ci càllale gi ba tax mu mën a dogu ci ne xadis bi dafa ma mën a wax ne bay bëgg a wax ne xadis dafa daif loolu mënuma ko bañ a tënk il faut ma tënk ko bi sanad xayyadaa kon daf koy tënk bi sanad dañ ci càllale ne ci càllale gii dafa daif xadis bi ñëw na ci càllale gii nekk ci na sunan Tirmidhi waaye dafa daif lu tax xaw fa ngir ragal yi dikku aj wadaaw loo xam ne moom mooy li lu gën a dëgër maanaam ndax lan damay ragal ndekete nekk na ci musnad ahmad imam ahmad rahimahullah xadis boobu même xadis bi ci càllale goo xam te ne bu boobaa boobu moom dafa dëgër këcc dégg nga wax wala boog mu nekk loo xamante ne ah, ah, dafay yéeg maanaam ah, comme na kama yarqa alladi qad wusima kama yarqa non ila al xusni alladi qad wusima daafan dégg li suu il xifdi aw irsaalin aw tadlisin aw jahalatin izara aw maji'ahu min jihatin uxra maanaam loolu lu mat a bàyyi xel la mooy soit tamit ne dafa daif ci càllale gi ak ci peut-être yeneen càllale yëpp waaye dañuy dëgëralante comme niñ ko gisee woon bi ñu nekkee ci xasan ragal loolu am ba tax mu gën a dëgër wala beneen xadis xadis bi dëgër ci beneen càllale ma ragal loolu moo tax dama koy préciser daan ne dafa imaam at-Tirmidhi moo soloo xadis bi ci càllale goo xam ne dafa daayif ma tënk ne xadis bi dafa daayif ci googu càllale loolu il foog ma wax ko mais duma ko joyal rek mu ne walaatu daayif moo tax kon nga ni kon nu may def parce que kon ce qui veut dire saa yu ma waree wax ne xadis bi dafa daayif rek il faut ma préciser ci càllale gi mu daayif mu ne waaw waaye kaay ma jox la solution nga ne waaw lan la jox ma euh, bismillah mu ne la walaa tudaif bul doyadal mutlaqan ci lu ñu doyal bul doyadal benn xadis ci lu ñu doyal maa fekk lam tajit dajoo tadaifahu ak doyadalam musarraxan mu nekk loo xam ne lu ñu biral la lu ñu leeral naññ la an mujtahid mu jóge ci koo xam ne imaam mujtahid la koo xamante ne moom yegg na ci dayeeg nekk maanaam mujtahid xaafis la koo xamante ne moom ku man la ku xàmmee la koo xamante ne moom maanaam euh, ku gis lu baree bari la ba xamante ne mën na tëral ay àtte indépendamment ci keneen maanaam moom mën na bañ a sukkandiku ci waxu kenn ndax yegg na ci niveau boobu kon loolu moo tax waroo di di tadaayifal maanaam di wax ne xadis dafa daayif noonu rek sans fekk nit maanaam borom xam-xam yu mag yi yu mag yi comme ñoom imaamul Buxaari comme ñoom imaam Ahmad comme ñoom imaam Daaraqutni قام امام الحافظ ابن حجر الاسقلاني انهم الامام السيوطي رحمه الله عليهم الامام الحافظ الهيثمي رحمه الله عليهم ñooñu ñu mel noonu ñooñu ñooñu ñoo ko man ñooñu ñoo man di wax naan la xadis bi dafa daif xadis daif ci jamono yu mujj yi moom ñi ko ci man bariwul comme xumaari yu ne yu mag yi ñoom mooy Seydi Mouhamed al Hafiz ak ñu mel noonu radiallahu anhum ñoom ñoo ko mën euh, sinon wax xadis bi dafa daayif noonu rek kooku du ku ndaw manu ko ku ndaw ku ndaw manu ko fokk nga topp ci ginnaaw kii moo tax ku nee la xadis bi dafa daayif ku ko wax lañ lay laaj fokk nga wax ku ko wax parce que munoo taxaw rek ne xadis bi dafa daayif il faut mu nekk ne daf fekk ne borom xam-xam yi ci boppam dañ koo daayifal yaa ngi dégg kon Euh, lii moom mooy li nga xamante ne euh, moom la war a gis ci suñu jotaay yii di ñëw maanaam suñu jotaay bii ak waaw suñu jotaay bi ñu nekk amaan na ñu jeexal ko amaan na mu dem ba ci jotaay bi nga xamante ne moom moo ci tegu mu nekk kon euh, ba bayit deux cent soixante douze ba deux cent soixante dix neuf deux cent soixante douze kon ba deux cent soixante dix neuf muy hmm, muy sept bayt wala huit bayt muy huit bayt euh, maanaam bayt yi kon niñ ko gisee ginnaaw bi nga xamante ne moom la al imam as-Suyuti rahimahullah wax li nga xamante ne maanaam moom moo aju ci daif ak xeet yi nga xamantene mom lañu xamé way daif euh mu préciser lan moy musnad ak lulul musnad euh ya, marfu' mawquf maqtu' yëpp bu ko defé nga mën leena ragnat le ba xam lenn lu ci nek fan nga koy la bala ngay wax ne marfu' la fekk dafa daif marfu' an ndekte mais mawquufal la sahih ak kan lañu mëna atté yi aju ci yoyu mawsul munqati' mu'dal yoyep nga xam فار اكزامبل منقطع اك معضل اي خير لنج تي موضوع ها تي تي لي تا حديث بي نيو ضعيفال كو تي نستغفر الله اي خير لنج تي نيو تا حديث نيو ضعيفال كو اك مرسل مو ام اي كونديسيون ني مانا دغرل مرسل اتسترا مو عن ان اك معلق ييب نيك حديث معلق دا فا ضعيف كوم نين كو خامي بامو ديس تي كونديسيون جانغ mu an an mu am mu mu an an ak mu an nan yëpp ñu xam maanaam kañ lañuy mën a nangu ak kañ lañ ko du nangu tadlis ak li ci aju irsalul xafi al mazidu fi muttasil asanid yooyu yëpp ak chaz ak mahfuz lan ni xam ne chaz moom dafa mu munkar ak maaruf ñu xam ne munkar dafa daif matruk ah, après mu wax ci li nga xam ne moom mooy li afraad yi ak yu ci tegu yooyu yëpp nga xamantene mën nañ sahih mën nañ hasan mën na daif waye nak nga xamne daif mo ci al gharib par exemple parce que moom fardun mutlaq la aziz mashhur mustafid yooyu nga xamantene mën nañu sahih mën nañ hasan mën nañ daif waye mutawatir mom day sahih bu ko defé nga mëna mu wax li aju ci walu i'tibar mutaba'at shawahidi yi ziyadatu siqaat yooyu yëpp nga xamante ne day war a tax nga mën a xam lan mooy lii eh, eh, kañ laay mën a àtte ni lii dafa daif ak lii daiful ah, ak mu indi ci muàll nga xam ne xeetu daif la bu spécial bu compliqué bu jafee xam ñoom moom moom mu muttarib ak maqlub hmm, eh, ak muttarib ak maqlub ak mudraj hmm. yooyu yëpp ak mawdu nga xam ne ay xeeti daif lañ yoo xam ne yëpp dañuy dugg ci àll yi ba tey ah, yooyu mu daal di indi nag kon bunt boo xamante ne maanaam ak gëstu la ciy def boo xam ne da koy tëje gëstu googu nag nga xam ne moom la def moo tax mu tuddee ko xaatima moom la gëstu lu ko xam dama koy tëje nga xamante ne def ciy tëj mboolem li nga xamante ne dafa aju woon ci bunt yi weesu ci leeral maanaam xeeti daif yi yan ñu maanaam nan la ñu toftale woo gis nañ kon masala bi mu ci njëkk a traité mooy loolu mooy daif lan yan nan lañ toftale woo ak tamit léegi mu xool nan laay solowee xadis boo xam ne dafa daif nan laa koy exprimer est-ce que nu ma neex rek laay waxee xadis bu daif ak tamit xadis bu daif kañ la ñuy nangu ma exprimer ko sans leeral ne xadis bi dafa daif après tamit ma wax bu may wax tamit ne xadis bi dafa daif kan lañu may ak nan lañ ma mayee man muy exprimer di leeral ne xadis bi dafa daif nan lañ ma ko mayee yooyu mu nekkoon ay masala yoo xamante ne daf ko daf ko dajale mu nekk ab gëstu boo xamante ne daf ko def yàlla na ko yàlla fay ngeen ji fay rahimahullahu rahmatan waasa wa radiya anhu eh, eh, ridan la saxta baadahu abada Euh, kon mu nekk loo xamante ne lu ama am solo la ci wàllu gén yi léegi imam as-Suyuti rahimahullah muy wax charru daif daif bi ci yées mooy alwadu mooy lu ñu sos comme niñ ko gisee al xabarul mawduu charrul xabari xadis bu mawduu moo yées ci xabaar yi ci xadis façon xadis yëpp bi ci gën a garaaw gën cee bon yées ci gën ci ëpp danger ba pare ëpp ci gravité ba pare nekk loo xam te ne lu jara moytandiku la ba pare gën cee garaaw ci ki koy soloo ak ki koy nettali ak ki nga xamante ne tamit moom moo koy soloo même bu fekkente ne tey ko maanaam eh, ci wàccee degré quand même cetera ak yi ci aju loolu moom bi ci gën a garaaw yëpp mooy xadis boo xam ne mawdu la nga xamante ne moom moom moo ci gën a bon moo ci gën a dangereux euh, fa bi ci tegu al matruk mooy xadis boo xamante ne matruk la mooy xadis boo xamante ne comme niñ ko gisee woon mooy loo xam ne kenn koo xam ne dañ koy tuumaal ci kàccoore ci maanaam ak ci wax lu dul dëgg ak ci maanaam ak yenn xeetu ñaawti fi euh, moom lañ koy euh, Hmm? Euh, wala boog ak yëgadi wala boog mu bari lu muy def def la nga xamante ne moom kese kese kese su solowee ab xadis kenn du ko nangu kon loolu moom moo ci tegu koo xamante ne moom dafa wéet ci xadis te mel nii soit dañ koy tuumaal ci wax lu dul dëgg wala ñu xamee ko ne day wax lu dul dëgg maanaam day dañ ko tuumaal ci muy wax xadis yoo xam ne dafa daif maanaam muy muy sos xadis dañ ko tuumaal ci muy sos xadis muy muy wax lu dul dëgg di fen di indi ay xadis yoo xam ne wérul wala boog mu nekk koo xam ne dañ koo xamee ci muy fen ci leneen lu dul xadis yu yenente bi sallallahu alayhi wala ñu xamee ko ci kàccoore wala boog ci négligence mu négligence ci wàllu xadis yi de telle sorte que ni mu koy solowee ak yu mel noonu ak ni mu koy mokkale yëpp def ci am négligence gu gu garaaw wala bokk mu nekk koo xam te dafa bari lu muy def def leen di di di di di di di di di juum lu baree baree bari ci ni muy nettalee ci ni muy mokkale ci ni muy taree et cetera ñooñu bu ñu wéetee ci benn xadis xadis boobu waxoon nañ la ne matruk la tudd te day daif te loolu boobaa kenn du ko jël te kenn du ko bàyyi xel loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom moo tegu ci lan ci xadis bi nga xamante ne maanaam moom mooy mawdu euh, kon fal matruk kon matruk moo tegu ci mawdu sum topp nag zun nukri mooy xadis boo xamante ne munkar la xadis euh, boo xam ne zun nukri nag maanaam mooy boroomu cibeel wala borom ñàkk xàmme maanaam mooy comme li ñu waxoon rek diggante maaruf ak munkar euh, munkar nag mooy loo xamante ne comme ni ñu ko gise woon ki ko soloo du siqa mu solo xalis bi wuute keneen koo xamante ne moo ko maanaam kooku siqa la koo xamante ne dafa wóoradi dëgërul ay waxam fu ko bàyyee xel kooku mu soloo xadis boo xamante ne daf ci wuute koo xamante ne moom ay waxam dañ koy bàyyi xel loolu moom la ñuy tuddee moom lañ tuddee lan loolu lañ tuddee munkar kon matruk moom moo gën a garaaw waaye maanaam moo gën a garaaw munkar gis nga tartib bi euh, boo ko xoolee dafa jël kon munkar maanaam mu teg ko ci maanaam dafa jël maanaam matruk jàpp ne moo gën a doy di munkar euh, loolu tax na ba yeneeni boroom xam-xam teg yeneen xeetu ah, yeneen xeetu euh, yeneen xeet waaye beneen beneen tartib waaye boo xoolee munkar ak matru ak matruk quand même gis ne munkar peut-être cosaanu xalis bi ñoo ko bokk mais sauf ko dañoo wuute ci benn version wala yu mel noonu loolu moom moo tax matruk nga xamante ne moom cosaanu xalis bi ci boppam wérul du tout baaxul deefu ko bàyyi xel moo tax matruk gën a gën a gën a garaaw moom mu ne kon fal matruku sum zunnukri fal mu àllu xadis euh, boo xam ne mu àll la moom dafa am àll la dafa am sikk goo xamante ne moom moo ci tegu loo xamante ne boo ko xoolee maaka kaw ni hi zahiratum salaama maanaam boo xoolee nii ci biti nii da jàpp ne ak mucc am na ci fekk problème bu rëy am na ci xadis bi euh, kon loolu moom moo ci tegu euh, ndax problème bi maanaam moom nëbbatu gi mu nëbbatu ndax xam nga moo tax parce que àll la parce que boo xoolee matruk boo xoolee mawdoo après matruk ak munkar yooyu yëpp seenu ñàkk wér dafa leer seenu ñàkk wér dafa leer léegi soo xoolee kon ginnaaw loolu mu ne euh, indiwul chaz fii soo seetloo indiwul chaz dafay dugg ci diggante munkar ak mual ndax shuzuz tamit loolu la mooy koo xamante ni par contre ku wóor la mu wuuteeg ku ko gën a wóor kon shaz dafay dugg ci diggante munkar ak mual léegi mual moo ci tegu moom mual nag li tax mu tegu ci mooy boo xoolee yi njëkk yépp mawdu' matrok munkar ak shaz ay mbir la yoo xamante ne soo leen seetloo sikk gi ci nekk problème bi ci nekk dafa feeñ de telle sorte que ñu mën a àtte ne xadis yi ñoom wéruñu du tout du tout du tout alors que yeneen yi comme mu àll nga xamante ne loolu comme liñ la ko wax ne la mu àll euh, sikk gi nga xamante ne moom la ñuy wax mën a taxaw wax ne xalis bi euh, euh, yàlla daf cee am day nekk loo xam ne ci njortu rek lay tegu maanaam ci lu ëpp ci njortu gu bare bari lay tegu lay lay lay tegu hmm? euh, te day nekk loo xamante ne tamit da nga koy lu ñutu lu ñutu lu ñutu lu ñutu lu ñutu lu bare bare doo ko gis léegi ba pare tamit beneen affaire mooy illa maanaam mu al xadis waxoon nañ ne la am na ci yoo xamante ne duñu yàq xadis am na yoo xam ne duñu yàq xadis wa minhuma laysa bi qaadixin ka an yubdila adlan bi musaawin xaysu an comme niñ ko gisee woon biñ ci tollee wallahi alhamdu wal wal minna loolu kon benn mbir la moo xamante ne lu mata bàyyi xel la maanaam lu lu war a tax maanaam yàlla ñu indi ko parti bi ñu indi ko fii fal mudraj mudraj dum moom lañ ci moom lañ ci tapp boole ko ci maanaam tapp ko ci boole ko ci doxin ko ci dugal ko ci boole ko ci maanaam teg ko ci boo indee mu al mudraj ngay indi parce que mudraj en fait moom du waxu yenent bi sallallahu alayhi dañ ko ci dugal mu xaw a compliqué maanaam dañ ko ciy dugal mais dañ koy xam buñ ko xamee loolu en réalité parfois day nekk explication parfois mu nekk lu ñuy layee loolu moom moo tax dañ naan dafa daayef ci ne yonent bi sallallahu alayhi la jógee mais boo ko seetloo tout le temps ci biir maanaam surtout bu dee mudraj la ci matnu da ngay gis ne day am relation bu étroite entre wax ji ak xadis bi ci kaw loolu kon ah maanaam loolu dañ naan dafa daayif dans le sens où dañ naan soit mawquf la wala maqtu' la wala yooyu loolu la ñuy mën a wax maanaam ne wax ji wér na jóge ci ki ko wax mais jugewul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loola tax ñu indi ko mu ne wa ba'dahu ginnaaw gi al maqlub lu ñu jàllar bi maanaam loo xam te ne maqlub la maanaam wax joo xam dañ ko waroon a teg fii ñu teg ko ne moo gën a doyet maanaam moo ci tegu parce que euh, en fait wax yëpp waxu yenente bi la sallallahu alayhi xam nañ ni wax ji waxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mais niñ ko waxee moo changé de telle sorte que te loolu pour ñu dogu ci tamit dafa jafe moo tax du ñu mën a tëb rek ne lii euh, wérul beneen bi mooy Euh, jàllar bi ku googu noonu ba ñu mën a xam ne xadis bi maqlub la effectivement xal bu daf cee am ak jàllar bi wax ji daf cee am au lieu de place wax sàngam nga dugal ci nàngam comme niñ ko gisee woon ci ay exemple loolu ba tey maanaam euh, sens bi daf fiy des maanaam euh, parole bi wax ji ci boppam la fait que mu sax ci yent bi sallallahu alayhi wasallam donte niñ ko waxee moom moo jàllar bi ko rek mais ci njuumte rek niñ ko waxee mais wax ji ci boppam sax na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tax xeetu daif la mais ضعيف ضعفه جي دا نكوي خامي رك ابري ني مونا جوفي حديث بي مام دو تيرن ني جوفي حديث بي غيسغا ييغا خامتن موم موي كوم مدرج دو تيرن ني جوفي حديث بي موال نك بو سيرلو ييب دا نيو دوغ ادراج قلبو اك اضطراب ييب دا نيو دوغ تي علا تي بير علا كوم نينكو غيسي وون سوف كو bo xoolee mu al maanaam buñ leen seggee kenn ku ci nekk nga indi mu'all de manière général moom moo nekk ci diggante yu njëkk yëpp wad'u matruk maanaam mawdu' matruk munkar shaz yooyu après mu'all moo nekk ci diggante moom ak yeneen yi ci des yëpp maanaam mooy mudraj après maqlub après muttarib muttarib mooy yoo xamante ne wala dañoo indi wal waaw fal muttaribu après muttarib moo ci indi nga xamante ne euh, euh, affaire bi dafa lëbëjoo dafa jaxasoo de telle sorte que Euh, wax ji euh, munuñoo nootal benn ci kaw beneen ànd ak ne xam nañ ni wax ji yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax loolu nag euh, benn affaire rek moom moo am moom mooy moom mooy moom mooy di mën nañu xam ndax wax ji wér na maanaam maanaam mooy peut-être que buñ ne munuñoo nootal benn ci kaw benn amaan na mu am kenn ci boro xam yi wala ñenn ci ñoom rahmatullah alam ñu mën a ñëw daal di xam ne ah non non no non en réalité ittirab amul en réalité mbir mi ittirab la peut am na wala du ittirab xayra qaadixa la maanaam ittirab la boo xamante ne du dara am na tamit beneen ñeneen ñu mën a ñëw ne déedéet ittirab sax en réalité bi ñu wax amul parce que mën nañu boole xadis yi mën nañ leen a bokk nuñ xam nu ñu leen di déggee ak yooyu donc ce qui fait que loolu comme moom lañ ko gën a mën a def kii ci des yëpp loolu moom moo tax mu tarif nekk loo xamante ne maanaam xadis la boo xam ne dañ koy daal di mën maanaam dafa dayef gaa ndax euh, dóora dóorante bi ndax kii mais euh, euh, moom moo gën a tuuti ak dayef ak doofu nii nga xamante ne moom la ñu toftalee nag nii nii nii nii nii imam as-Suyuti rahimahullah lii mu wax ne moom maanaam moom la toftalee xadis bi lii moom la al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah indi def tartib bii la indi comme ni ko imam as-Suyuti rahimahullah waxee ci raaw yi waaye mu ne wa axaruna maanaam kon ban mooy maanaam kon mawdu après matruk après munkar après mu'al après mudraj après maqlub après mutarib amma shaaz nag day dugg kon ci diggante munkar ak mu'al comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ah, wa axaruna am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom ci borom xam-xamu xadis yi gayra hada lu dul lii leneen lu dul li rattabu ñoom noonu lañ toftale maanaam kon ñoom dañoo toftale xeetu daay fi maanaam ci ñenn ci borom xam hadith rahmatullah dañoo xol benen xet benen soobu way buñu soobo ci ni ñuy toftale daay imam al-khattabi rahimahullah mom daf ni bi ci yes moy al mawdu après al maqlub après al majhul mom la wax man ko xamne ne dañoo dafa am ku ñu réere ku nekk ci bir ah lolu kon mom non la ko toftale ah imam az-Zarkashi rahimahullah mom dafa ni yi nga xamante ne moom la ñuy fal ndax amuñu ak maam ndax amuñu ndax ndax jokkaloowuñ yooyu ay xeet lañ bi ci gën a garaaw mooy mawdoo après mudraj moo ci tegu parce que moom dañu juróom xeet lañ bi ci gën a garaaw mooy mawdoo après mudraj moom mudraj la ci dugal après moom mu dugal maqlub après mu dugal munkar après mu dugal chaz après mu dugal mual après mu dugal muttarib boo seetloo kon moom euh, fi pro maanaam moom mudraj ak maqlub la jël jàppe ni moo gën a garaaw maanaam juste après maanaam euh, mawdu sooy xool nag matru kon daf koy dugal ci avant munkar euh, après kon après kon munkar après shaz après mual après muttarib voilà waaye xoolal imam euh, as-Suyuti rahimahullah moom bi mu solowee wax ji daf ni bi mu indee wax ji daf ni tartib bi toftale gi tamit toftale ku baax la waaye suuf ko nag yelloo na ñu jël jël matruk dugal ko ci diggante maanaam avant mudraj maanaam daf mawduu après matruk après mudraj après maqlub après munkar après shaz après mual après muttarib waaw waaye nag euh, euh, mu ne aussi imam as-Suyuti rahimahullah bi mu indee toftale gi ba pare tamit daan ne yelloona aussi yelloona aussi ñu solo xadis bi maanaam euh, ñu wax ne lépp loo xam ne dañ koo daayifal parce que jokkaloowul ñu ne bi ci yées mooy moodal parce que modal en fait càllale comme niñ ko xamé modal day gis ni muy euh, amna au moins ñaari yu tégalo lool mom day yok dangerosité ak gravité wu doyadi gi ah, kon lool la hmm, euh, modal après ñu tegu ci munqata munqata mo ndax dafa dog après mudallas après mursal té lool tamit manam toftale gi moom dafa feñ parce que modal ñaar ñoo tegaloo dog munqati benn dog-dog la am wala bok dog-dog yi ci place yu wuute la nekk mu dallis mu dallas moom xam nañ ko parce que moom dog-dog euh, gi taxu koo rëy noonu taxu koo garaaw bon ça dépend donc loolu tamit maanaam après mursal mursal parce que am na sax ñu wax ne mursal xadis la boo xam ne dañ koy layee dafa dëgër kon bu boobaa lii dafa nekk loo xam te tamit dafa feeñ te dafa leer léegi euh, bi mu paree fii muy wax nan la ñuy solowee